loolu mënuma koy leb moom tur bi ak sant bi waaw. Ah, naka nga gisee li nga xamante ne am na ci Kër Massar ñu bus si yëpp ñu taal ko. waaw ni ma ko gisee mooy ni ko Sénégalais yëpp gisee ah, du ma ni neex na si xolu ñëpp naqarul tamit si xolu ñëpp ndax état bi moo war a arrêté. war a bi moo war a arrêté Sénégalais yëpp xam na ni lii Sénégalais xam na ni lii nii ay caaxaan la maanaam benn nit benn nit kese nee na ko veele te gis ngoo tey bi mu génnee. mu ngi si jàmmam léegi loolu ndax jar na réew mi di tàkk ay bakkan dix dix sept personnes fi plasaan yi gaañu nañ si si kenn ku jigéen ke neen dañ koo veela nee na dañ ko ëmbal dara amu si su moom dara la loolu la nga waroon naa tax ñu arrêté ko maanaam ñu xool léegi aji Sarr du demee ba gañee projet bi lan lay jural Sénégal lan lan lay jural Sénégal lan xamul lan dara. mais loolu jar nañu taal li nga xam ne suñu moomeel la bisi déggoo dama ne daa am lii dafa am lu ko sabab. état moo war a arrêté état si boppam moo war a arrêté soo arrêté sénégalais yi bu ñu jot sax génn naa da ngay xeex ak moom état kenn du xeex moom da ngay forcé di napp nit ñi dañuy kii. non man moom man la ko. man lii laa jàngat lii mooy li am. man d' accord nga affaire bi. fekkoo ma si ma ko. ah fu mu tàkk. maa ngi sama non man xaw naa sori lii xaw naa sori fii nag. Ah. xaw na sori fii. gis nga ni lii lu yoon euh, euh, jeunes yi waaw waaw man nga bañ a loolu ko ñëpp xam nañ ko loolu moom du laaj sax ah. waaw loolu ñëpp xam nañ ko loolu ñëpp xam nañ ko wax ji lenn la mooy état moo war a arrêté ah. état moo war a arrêté loolu kese la lii amul du jural Sénégal dara dara su Adji Sarr gagné projet wala lan du ko jural dara nan arrêté ñu delloo plainte bi nit ñi nekk seen jàmm. sinon rek fi mu toll mën na gën a métti xamul ay oto nañ gis kenn mën na gën a métti xamul waxuñu fi man lay man maa koy def waaye dama ne mën na gën a métti kenn xamul fi mu jugee voilà te koo xamante ni peuple moo nekk si ginnaawam dafa garaaw peuple bi fu nekk ñu ngi fa ñu ngi sa buntu kër sax voilà suñu meree mënoon loo xamante ni waaw yàlla baax na. ko dëkk man Saloum. Saloum mais yow yaa ngi nii ci Kër Massar nga nekk euh, tey naka nga gisee li nga xamante ne nii am na fi. Euh, métti la ko rek. ñaaw la ko naqar la ko ndax alal ju bëri ju mel nii ku ko yàq si erreur waaw ah, duñ mën lu mooy naqar la ko mm, di ñaax ndaw ñi rek wala leen ne lii nii ñi ñoo ko moom sunu alal la ñoo ko liggéey eh, réew mi bu yàqoo ñun la yàqul ñaan yi ki ñu mën a xeexal comme soo andi pouvoir doo fi gis mu ko alalu Macky Sall bu yàqu wala alalu sunk bu yàqu wala alalu ku mën a doon bu yàqu doo si gis seen njaboot doo si gis seen doom li fi nekk yëpp ñun ñoo ko moom kon suñu alal la nañ ko sàmm képp ko am nooy xeexee wala képp ko am loola naqadi am nga sa benn armo nga am mooy sa carte bàyyil bu jotee nga watal kilo neex bu boobaa loolu kenn si mën dara waaye nag jël alal li yàq te waxtu bu ñu ko yàqee réew mi moo koy fayaat te bu ko fayee itam eh, dafay feñaat ci population bi dana dem ci pañe pañe ménager bi sa ceeb dana yokk sa diwlin dana yokk képp koo xam ne man dama jàpp ne yaa ngi def lii rek da nga nekk responsable waaye bés boo demee ba ba xam boo yàqee ban conséquence lay def réew mi dama yaakaar ne yii yu bëri doo ci dugg kon nag maa ngi ñaan yàlla eh, nit ñi dellusiwaat si xel dellusiwaat si sago eh, ñu ñu ñu xool bu baax li ñuy def di ñaax tamit population ak parents yi ñu xool ni yaree njaboot gi ndax doomu aadama. Hmm? waaw woy politique itam ñu bàyyi nit ñi ñuy influencer. doomu aadama mën nga ko woo mu def révolution waaye révolution pacifique am na révolution morale am na nit ki mën nga ko sa euh, conscientiser ba nga xamante ni li nga bëgg dana ko def te doo ko xeexloo doo ko xulooloo mu ngi si côté pouvoir nag di si côté opposition ku si nekk rek def nga faute man lii dama jàpp ne ñoom ñaar ñëpp ñoo def faute ku si ku si nekk si nekk am nga responsabilité ndax euh, bu dee bu dee côté pouvoir bi la nee naa la doo si gis mukk alalu Macky Sall léegi nag yow li nga xamante ni boo ko wootee doo si yàqule moo yow mi ngay woo moo si ko kooku moo si yàqule kooku waroo ko si waroo waroo ko woo léegi nag man loolu tax ma jox leen index ñoo ñoo ñoo a waral yëpp kon nag di leen bàyyiloo xel di bàyyiloo xel sama bopp di ñaana réew jàmm jàmm sax fi waaw man naa maa ngi dëkk si tout tout près rek Mm, non fekkut ma fi sama sama néeg la ma la ma fekk waaye gis naa saxaar si yàgg yàgg na dama dégg rek ne taal nañ ko xaw ma ñu ko taal waaye dégg naa daal ay des hommes cagoulés ñoo xam ne dañoo cagoulé wu ñoo ñëw taal ko mais may gisuma taal bi yëgu yëguma ko maa gis naa gis naa saxaar si mais yëguma ne yëguma ne bi ñu koy taal xaw ma xamu ma ay nit yi ñu bëri neen gis nañ leen. waaw nee nañ sapeur bi ñëw fi fay fay ko après euh, policiers yi ñëw nañ fi ñoo wax nañ ko waaye man gisuma leen. waaye nag dégg naa ne ñoom ñoo ko fay dégg naa dégg naa sax ron nañ trois fois pour fay lii. Hmm. kon tànk bi dafa dem yéegi woon day. tànk moom wax dëgg yàlla kawoon na lool ba kër yi nekkoon ci pegg nii sax dañoo xawoon tiit pour ñoom seen sécurité parce que yem oto yi bu ñu defoon essence mën na gën a ñaaw. Hmm? parce que bii comme bis yu yàqu la woon la woon rek loolu moo waraloon loolu mais dutoon bis yu baax ba nekkoon bis yu baax la dana garaaw hmm? waaw loolu la quoi. maa leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ñaan yàlla wàcc si réew mi jàmm ko ñaanal ñëpp te jàmm rek moo fi mujj ah jàmm rek moo fi mujj si kàttanu yàlla. waaw ci Kër Massar li fi xew moment bi muy xew fu mu la fekk. non moment bi muy xew mu ñu fekk fii. ci bi si marché la. ay vingt heures rek la. da ngeen di mën nga ñu expliquer bi nan la demee. ndax ñoom ñun ñu ngi taxawoon fii quoi mais ñoom dañoo njëkkee si Senelec bi après taal ko Senelec bi ay verre la quoi ñu taal Senelec bi tàkkul mu tàkk tuuti rek xam naa fii li ñu tàkk après mu fay. léegi man instant boobu noonu boobu noonu commencé ñu taal fii quoi après ñun si lañu dugg sama kër sama kër moo nekk étage bi soo jàddee nii dama dugg rek après génnaat fekk ñoom wiiri nañ ne le ñu doon ñi ko taal sax bëriwuñu ay presque ay six personnes rek la ay six personnes rek lañ mais dañ ko taal ñee bi génn tëb fii daw léegi ñoom si lañ ko taal quoi. waaw. mais kenn jàpp kenn jàpp ñoom dañ ko taal rek dem boobu nit ñi bëreegul fii boobu ay policiers gendarme kenn nekku fi ñoom dañoo ñëw ba ñuy taal fii nag groupe lañu woon mais taal fii moom ay six personnes rek la dañ fi dugg taal ko affaire yi tàkk ñu dem seen yoon affaire tàkk na lu yàgg fii amul nit ñun rek ñoo fi tax woon fii. yéen woo ngeen yéen waaw yéen ñun moom dañ doon taaw comme fii lañ dëkk suñu dëkkandoo yi ñu doon rawale bagage yi nekk fii quoi côté bii. ay xarak ay sobleek affaire yooyu ay ngooñ xam pour mu bañ a tàkk pour jàpp marché bi quoi léegi nag ñun yooyu lañ doon rawale quoi waaw. tey lan euh, lan ngay ñaax ndaw yi nga xamante ne nii euh, ñoo ngi fii. ñu lii rek ñu ñu ñu def nànk rek ndax affaire bi nekkul xeexu ndaw yi quoi franchement affaire bi moom nekkul xeexu ndaw yi ndax lii tey ñun suñu lu ñu yàq ñun suñu alal la ñu yàq tey bii si ñu yàq. ñun ñoo ko moom ñun ñoo si yéeg di dem Dakar comprendre nga Sénélec bii ñun Sénélec bi nekk fi woon Malika la nekkoon léegi suñ demee ba indil ñu ko fii ñun suñu arrangement la jege nañu mais ñun suñ ko yàqee ñun fan lañu jëm maire ñuy taal suñu doom yi suñu kayit yi léegi ñoom suñu taal ñun fan la ñu jëm loolu lay gën a delloo réer ginnaaw quoi ñoom daal xam nga li ma leen ñaan nañu dal ànd ak seen xel waaw affaire yi loolu kese la quoi. waaw ñu gis que ni fii depuis démb dañoo yëg information que ni am na ay bus yi nga xamante ne dañ leen calciné fii nii yow en tant que citoyen Keur Massar naka nga gisee li nga xamante mooy situation bi fi xew depuis démb waaw effectivement loolu am na fi euh, maanaam comme dépôt bii nii ni ko gars yi ni ko gars yi waxee rek bus yu yàqu yi ñu fi doon ñëw dépôt ko fii xam nga yi daanaka dawul sax mais dafa am am euh, gasoil ci biir kon buñ ci defee lu ndaw rek day daal di jëf. yow démb yaa ngi woon fii nii affaire bi nu muy demee. waaw démb fekk moo fi mais avant ñoo dem ci la booy commencé woon di génn tuuti ci lañ génnee ñun ñibbi léegi ci guddi nag ci la ñuy woowat xam nga fii sam benn copain bi dafay di toog di daje léegi affaire yi jafee noonu ci la ñuy woo mais mun mënuñu ñëwaat mais bi ñu xëyee nag ci lañ gis affaire yi jaxasoo yooyu nii quoi waaw mais léegi lan ngay wax ci rek ci jeunesse bi ak ñi nga xamante mooy di ñaaw teef yi nga xamante def nañ ko fii nii waaw li ñuy wax ci jeunesse bi mooy tey lii nii ñuy yàq nii nekkul nekkul nekkul nekkul loo xam ne saa yi Macky moo ciy dugg wala Ousmane Sonko mi ñuy ci boppam moo ciy dugg te fi tey tey tey bii sii nii ñun ñoo ciy dugg ak suñuy doom ak suñuy papa doomu Ousmane Sonko dugg ci doomu Macky dugg ci kon nag lu mu ti am rek nit ñi ñu ànd ak seen xel nit ñi nañu ànd ak seen xel maanaam yàq bi amul benn njëriñ taxut affaire yi réglé wala mu normal maanaam nañu xool daal nu ñuy doxalee daal bàyyi yàq bi daal amul solo daal wax dëgg yàlla ndax yàq bi moom wax mun naa ñàkk quoi. waaw nañ ko ni fii tàkk dàkk daf fii amoon ay bus yu yow situation boobu naka la demee woon yaa ngi tànk mu daal fii lañ toog toog fi daal ba ay côté vingt heures vingt et rek gis affaire yi tàkk boobu ñun nag ñu ngi côté bi mais côté bee la tàkkee finalement nag la tàkk bi jóg ba mooy loolu ba dem ba dépassé ñu ñu mujj woo sappoor mais avant sappoor di ñëw moom ñun moom tiitoon nañ lool toxal nañ suñu bagage yeeg suñu ngooñ yi nekkoon fi ak lépp këriñ yeeg moom daal démb daal moom ba deux heures du matin ñu ngi fii nii di di di di kii affaire yi affaire bi moom heureusement nag moom mooy loolu waaye nag moom garaaw na lool de waaw. léegi li information bi tak tak bi lu mu demee ak euh, ñi ko def wàll yooyu. waaw ñi ko def moom man xaw ma leen exactement waaye xam naa ne moom nit a ko taal moom mais xaw ma exactement ñan ñoo ko def moom ndax côté bële la tàkkee. ñun fii ñun te ñun ñu ngi ci ginnaaw duñ duñ gaaw a gis xam duñ xam mën a xam ni ko daal dañoo seen tàkk-tàkk yi rek muy départ. ñu ñaax ñi nga xamante ne parce que jeunes politique rek benn message bi nga xam ne dañ leen laaj. ñu ñu ñu bàyyi li ñuy def rek ndax tàkk-tàkk bi amul benn njëriñ ndax lii buñ ko yàqee askan wi lañ ko yàqal dégg nga ndax seen alal la waaw te yooyu noonu yëpp mën naa ñàkk quoi waaw di ko taal fii affaire yi nangam sàngam yàq la daal waaye gisuma ci benn benn kii quoi benn njëriñ amu ci amu ko ci waaw waaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant